asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki julli di mbokki taalibe yi ñu ngi leen siyaare baax di leen nuyu di sant yàlla bu baax di julli seen waxoon alayhi salaatu wasalaam di sant seexul xaddim di sant suñu borom mi nga xam ni moo ñu mayaat tay tal ak fekke ñu koy faawaat 18 safar nga xam ni moom lépp mooy mbégum sëriñ bi dañ ne sax daa mel ni bis bi rek la sëriñ Tuubaa wax ni so saaku na ko ci dimbale ndax dañu woon xaraj yow ma sabti saami na asar li xidmatil muxtaari fi sëri safar waaye nag waxoon am na lu waxoon ci ku ko màggal ko màggal mooy wax di xawaay jël la si na daamu fi xidmati wa xëblahu maaraamu kon nag mu mel ni ñu ngi taxaw ak waa Touba ca kanam nga xam ni wax dëgg yàlla lépp ñoom la ndax fii bu jagee rek daaj Touba moo jag bu Touba jagul fii du jag mu mel ni lépp liggéey sëñ Touba bi la te liggéey sëñ Touba liggéeyal sëriñ Touba la ñu wax kon dëkkam bee nga xam ne mooy moom la roon naañ wajal xarimana xariman amina wakun bihi kafilan damana kon nag yal nañu yàlla suñu borom subhanahu wa taala boole ñi nga xam ne ñoo war a dëkk bi ndax dañu woon wa maskani sallim minal fujaari moom naa alahli maayin jaari kon nag dañuy jox jëwriñ ni Serigne Pathé Diop la ñuy jox mu am lu mu sànni ci Touba TV Touba ca kanam bu ko defee ñu doog a jox Serigne Pape Soda kon Serigne Pathé bismillah asbillahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin arrahman rahim maliki yawmi din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 Euh, ni ko suñu mbokkum taal bi waxee rek euh, ñu nekk ñoo xam ne dañoo nekk fii ci Argentine Touba Argentine fi liggéey mais liggéey bi fi liggéey rek muy liggéey boo xamee dañoo am pas-pasub maanaam li nga xamante mooy dox ca Touba ñu koy mu yaatu ñu koy lawal ba mu ñëw fii ci Argentine maanaam euh, mbooleem li nga xamante ne mooy mbokki taal ne fii ci Argentine dañoo takkoo ànd suñu jëwriñ ji nga xam mooy mooy Pape Soro Sey ak suñu jëwriñ Cheikh Ndiaye ak suñu jëwriñ sëñ Cheikh Faye ak sëñ Messere Malé ñu ànd ak ñoom ngir yaatal liggéey Touba ci kanam fii ci Argentine kon nag euh, dañuy jël kaddu gi comme noonu rek ànd ak suñu jëwriñ Pape Soda di jël kaddu gi di ko jotal euh, jëwriñ Pape Soda euh, mu gën a leeral liggéey bi moom bi nga xam mooy suñu njiit léegi leen ci leen ci dolliwaat rek après ñu dolliwaat ko jërëjëf. waaw xam naa kon day jox jëwriñ sëñ Pape Soda ñu ngi siyaare baax Serigne seex Ndiaye Serigne seex Faye Serigne Mbaye Diouf ñu ngi leen siyaare baax a baax ndax ñoom ñoo fi taxawal di jàppale Serigne Pape Soda kon Serigne Pape Soda xam naa dañ lay jox nga am loo sànni ci Touba TV Touba kanam gi incha allah rabbi auzu billaahi mina seytaan rajim bismillaahi rahmaani rahim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala barakaatu mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom laa bokkal nekk fii si Argentine maa ngi nuyu di leen jaar wér tey ñaan sama kàddu fekk si yéen jàmm di sant bu baax a baax ni ma koy waxee ndax bi bisu tey bi képp ku yàlla dimbali ba nga fekk war ngaa sant yàlla sant yoon sant Serigne Touba di sant bu baax a baax Serigne Touba suñu yaakaar tey ak ëllëg euh, di gërëm bu baax a baax groupe bi nga xam ne équipe bi nga xam ne ñoom laa àndal di liggéey Touba si kanam ñëpp ñëpp ñëpp ndax ku lim rek da ngay juum maa ngi maa ngi ziar ñëpp ndax ba weeru safar wi teroo ba tey ñi ngi ànd ak maam di def turne si Argentine yëpp pour jëmmal liggéey Touba si kanam ndax ah, man lañ koy defal ndax fu ma nekkul rek am na ku ma fa représenté kon nag maa ni di sant bu baax a baax tey ñaan Serigne Touba mi leen di liggéeyloo Serigne Touba jox leen njëfandu gaay yi ñu ko liggéey ndax Serigne Touba képp ku mu liggéeyloo rek dina la jox njëfandu gaay goo ko liggéeyloo di leen ziar bu baax ndax ah, maanaam ah, waa Touba si kanam di ziar waa Touba TV Touba TV dama leen di ziar ndax média bi ñoo koy jàllale Touba TV maa ngi di sant bu baax a baax a baax te sëñ Gora Seck jiite ko tur bi naka laa di. Ayuba sëñ Ayuba jiite leen ñi leen di jaar ndax média bi fu mu àgg si Argentine rek Touba si kanam waa waa waa Touba TV ñoo ko fa àggale. kon nag Serigne Touba mi ngeen maa ngi bàyyi Serigne Touba fay leen te fépp fu ñu yaakaar seen euh, Touba si way àgg fa yàlla na fa yàlla àgg barkeb Serigne Touba di sant waa Argentine gépp ndax liggéeyu Serigne Touba bi ni ma koy waxee Touba si kanam dong moo fa des. kon nag maa ngi sama soññ si bopp di leen soññ képp ku màggal si tey nanga nga indi 150 peeso dagg weeru safar yi ndax yàlla dimbali ñu ah, bu weer yi dee rek bu màggal gi jeexee ñu mën a yónnee àddina ji mu dem ndax liggéey Touba Ca kenn ku ne gis na ni ko tax ndax 150 millions la génne biir sa màggal gi te xam naa ne dina ko weesu bilan bi njëkk a génne 150 million la te taalibe yi ñaar téeméeri taalibe yi dong moom lañ dajale ba 150 millions yi mat kon maa ngi soñ sama bopp ñëpp jërë ngeen jëf tey ñaan ñu fekk ko ay déwéni déwén te Serigne Touba dëbb élection yi ñu jub si yàlla fi yàlla def jàmm ba ki gën si réew mi gën si taalibe yi gañe réew mi yàlla suturaal xéwal gu sax dàq si réew mi barkeb Serigne Touba jërëjëf maanaam sëñ Pape Soxna ba tey xam naa ma lay laaj rek maanaam koo xam ni bu màggal gi jeexee tey ji ki nga xam ne war naa dagg Touba TV Touba Argent Touba ca kanam nan lay demee maanaam nan lay demee maanaam ñu toll bu màggal gi jeexee fexe nañ si màggal ba liggéey liggéey bu mucc ay ndax bépp promesse bu nekk Buenos seyre fexe nañ ba am fa représentant boobu jël na yeneen ñaar yu mu ànd la di ko liggéey soo ñu woolee rek wooyee rek nañu woo représenté ba nekkal tubaas Kanam mu jokkoo yow ba nga dagg Touba Ca Kanam noonu lañ ko doxale waaw jërëjëf kon xam naa dañuy wàcce foofu suñu kàddu ñu ngi siyaare baax sëñ Cheikh Ndiaye di siyaare bu baax a baax a baax a baax sëriñ sëñ Mansour. Mansour Seck waaw sëñ Mansour Seck ñu koy siyaare xam naa kon du jomb dañuy jox sëñ Mansour wër sëñ Cheikh Ndiaye rek kenn sànni si ay kàddu bu noppee ñu doog a yëkkati ñu ngi siyaare bu di saare ñëpp di ñaan Cheikh Mountakha mu yàgg fi te wér di ko ñaan sëñ Cheikh Jëmb Fall di ko ñaanal sëñ Moussa Bousso xalifa sëriñ Omar Bousso man la Cheikh Ndiaye taliba sëriñ Omar Bousso Touba Argentina di saare mbokk taliba yi yëpp yëpp di saare suñu jëwriñ sëñ Pape Soro Sey fii ci Argentina man Mansour Seck sëñ Pate Ndiouk sëñ Xaadim ñu ngi lay saare bu baax di saare sëñ Mat Diouf di saare sëñ Cheikh Faye di saare mbokk taliba yi yëpp di soññee ci Touba ca kanam ji rek li li ëpp solo mooy reçu yi daal njaayum reçu yi ñu taxaw ci bu baax a baax a bokk taalibe fu mu nekk rek fu ñaar nit ak ñett ñeen ñu fexe ba communication bi àgg ci ñoom comme ni ko sëñ Modou Ndaw di waxee rek reçu yi daal moom mooy mooy pas-pas bi ak Pastef bi ñu jaay rek mu mu xéwalee incha allah ñu fexe bu mbokk taalibe yëpp yëpp yëpp mu àgg ci ñoom ñu ngi siyaare ñëpp di baalu àq ñëpp di jégalu ñëpp di jox sëñ Mansour Seck mu. ah asalaamaaleykum. Euh, waa Touba TV ñu ngi leen di siyaar yéen ñëpp Touba Argentine TV ñu ngi leen di siyaar yéen ñëpp di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam ah di santaat Sëñ Touba baax a baax a baax baax di jël nuyoo bi nag di ko teg ci loxol coordinateur bi nga xam ne moom moo jiite liggéey bi ñu koy wax sëñ Pape Sow de Sey di nuyu maanaam fédération bi nga xam ne ñoom la yàlla defit ñu nekk fi ci njiital Serigne Talla Sall di nuyu jëwriñ paate mi nga xam ne moom lañu àndal fi ak eh, képp ki nga xam ni mooy sëñ Cheikh eh, Ndiaye ak sëñ Cheikh fay waaye nag liggéey bi moom macha allah xanaa santaat sëñ Tuubaa rek ndax lépp lu ci waroon ci diggante euh, waa Touba ci kanam ak taalibe yi daanaka taalibe yi ñu ngi def li ci mat lépp liñ ci dolliwaat rek mooy gën a soññaat gaa yi rek ñu gën a jàppaat ci liggéey bi te xam ni moom liggéey bi rek lañ am ñun moom ay taalibe yi sëñ Tuubaa lan te nag bu fekkee ni ñun dan ni ay taalibe Sëñ Tuubaa lañ te liggéey Sëñ Tuubaa bi taxaw liñ ci war mooy ray ci suñ bopp jéem ci góorgóorlu ba li ci Sëñ bëgg ñu def ko te Tuubaa ca kanam dong am nag te jàpp naa ne moom dong lañ fi dese ñu ngi santaat bu baax a baax di ñaanalaat Sëriñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi lool te ànd ko te barkeb Seera Fall di siyaare Sëñ Talla Sall bu baax a baax mi jëriñ Tuubaa Argentina dayre fi nekk yëpp mooy njiit li di ko ñaanal taxawaayam yàgg moom ak sëñ Bamba ñag mi toog ci moom di siyaare ñëpp jërë kon jërë ngeen jëf mbokk yi li leen jëlaloon ci wàllu waa Touba ca kanam gi xam naa kon incha allah rabi ñu deseeg yéen rek ci màggal gi tey ñu àndandoo ko ñu àndandoo màggal bisu sëñ Touba bi xam naa jommul ni Touba ca kanam am na ay soxna incha allahu rabi si kanam tuuti bu seen loxo féexee rek ñu am def nun def ak ñoom incha allahu rabi jërë ngeen jëf.